Noreyni jërëjëfati maam Thierno Mbacke Noreyni jërëjëfati maam yàlla fi yàgg lool te wér ak képp ku ko yéene barkeb Noreyni ñu ngi leen di ziar bu baax di leen sant bu baax di leen gërëm di tàmbalee cant gi gërëm gi rek ci commandant Assane ak Seydina Ousmane mii nekk sama ndeyjoor ak seen sëy di leen wax jàngeen jëf sama gaay yéen moom mention spéciale ndax yéen amoo leen kurul maam Thierno borom daaru Norin bëggoo leen kurul borom daaru Norin gëmoo leen kurul borom daaru Norin seen bésu tay bii seen tutànk yi ngeen xam ne tey ñoom ngeen doon defal bés bi wax dëgg yàlla xam nañ ne yéen sëriñ bi rek moo leen ñor te ñoom it borom daaru dong leen ñor. kon ñu ngi leen di jaajëfal bu baax ñu wax ne nag Baye Ousmane mu suñu jëwriñ di jëwriñu kuréelu Seydina Ousmane kenn amul fayam ñun kuréelu Seydina Ousmane képp amuñu fayam lii ngeen def tàmbalee ci asar Seydina Ousmane seen sëy ak ñoom Baye Mourou ak yéen ñëpp ngeen ko defal kuréel Seydina Ousmane ñëpp ngeen ko defal. boroom daaru ñu leen ko defal ndax sëriñ bi balaa mu fee jógee tukkee bii mu ñibbisi balaa muy dem ñun jëwriñ yëpp wool nañ këram ñu toog mu waxtaan ak ñun waaye bés boobu dam ñoo wax mbir daf nañu yéen jëwriñ li ngeen bëgg ci Seydina Ousmane mu gaaw ci jëwriñ Ousmane bi la nekk kon tey bés bii buñ ko jëlee jagleel ko ko kon xam nañ ni yéen juumoo leen jaawale woo leen kon tey xam nañ ne tey bésu tey bii ndéem moom lañ ko tuddee rek mu bëgg ci lool xam nañ ne ko nóoree ni kon dina leen jox ndam zaahir ak baatin kon ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm di wax ne Assane ñun mooy suñu commandant Assane lépp borom daaru Seydina Ousmane mi xam ne li may wax ndax moom moo Assane du tey démb la noori ni mi jaar naa fu ne Assane ci liggéey bi dafa fekk lépp xam li ci nekk lépp ànd ak fu ne Assane waaye Assane ñun liñ ko mën seereel mooy mën naa ne quatre ans wala cinq ans yoo xam ne asar xëyulul nit du xëyal kenn ku dul borom daaru fépp fu sëriñ bi nekk fii ci Dakar dëkk fa asar mooy monte ci buntu kër gi moo nekk élément boo xamante ni ay ati ati ati at ci ndigalu borom daaru moom dong mooy kees gi bu duggal sëriñ bi te yamul rek ci toog di secrétaire day selal asam day xëy di yeesal kër gi di yeesal buntu kër gi ba pare am moral asam dafa am élégance dafa am moral lii mu nekk da xam maîtriser ko waaye li ma ci gën a neex ci moom mooy moral bi te kenn du ko yem te liggéey bi fii mu jëm kenn mënul téye ba asan du fa yegg ndax lu tax sëriñ bi da koo xàmmee ràññee ko ci loolu asan bëgg lii lool gëm ko lool ba waajuram mu jigéen muy suñu maman daanaka nooru moom li ma xam na ko ndax lu ñu gëj kër asan man ak moom mii ay rakam yu góor ñoom aari ba ci rek yu jigéen yi tey Assane tey liggéey na ci kër sëriñ bi ba ñoom seen famille yëpp bëgg nañ borom daaru gëm nañ borom daaru grâce à Assane